asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi yëkkati kàddu nuyoo ak kàddu ziar mu tibbee sama xol fu sore si sama xol di ko jottali sunu sëriñ sunu xalifa cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bassirou sëriñ tuubaa di ko teg ci loxoom yi tedd yi ngir mu jottaleel ma ko njabootu am sëñ Touba yëpp di nuyu sëñ Amadou Maxtar Mbacke xaliif bu Daaru Xuddoos fi teew ak mbooleem njabootu sëñ Touba bi nekk sa ginnaaw sëriñ bi maa leen di jottali nuyoo yooyu ak ziyaara yi lu ci boole. Serigne Bassirou Abdou Khadre di sa mbokk yi fi yëpp ak mbokk taalibe yi ak ñi fi toogal état sëriñ bi ñëw naa tey niñ ko daan defee at bu ne ñëw andil la nuyoo ak ziara réew mi yëpp ci bés bu màgg bi di bésu lislaam di bésu cheikhul xadim yuy waajal màggal bi nga xam ne indi na fi ay ngeneel yu bare ci réew mi ci diine ji ak ci àdduna bi yëpp ñëw naa ànd ak sama soxna ànd itam ak ministre l'intérieur sa doom sa taalibe ànd ak ñëpp ñu fi teew ci nguur gi ngir ndokkale si la ci bés bi di sa bés ndokkale la waaye it sant la gërëm la surtout tey tànk yi ma fi ñëwee muy toujours tànk taalibe di tànk doom di tànk yi njiitu réew boobu nag jàpp naa ne ci coobare suñu boroom waxtu wii déwén ko yàlla dogalee keneen war na toog fii indi la nuyoo ak ziyaara réew mi loolu sama coobare bopp la woon ma jàpp ne yëkkati woon naa ay kàddu laata ñu may falaat ci 2000 19 noonu Sénégal boo ma wóoloo de joxaat ma réew mi fas yéene naa yemale sama liggéey ci Sénégal ci ñaari mandat yooyu kon nag topp wax jooju ak fonk ko moo waral ma yemale ko fii kon lii di ñëw fas yéene wu ma ci bokk waaye loolu du dindi dara ci diggante bi nga xam ne suñu borom moo ko def muy yéene ji nga am ci man fonk gi nga am ci man bëgg-bëgg bi nga am ci man te umpul kenn ci àdduna te ma xam ko yi dëgg muy lu nekk ci biir ak lu nekk ci biti kon bu ma tolloo fii war naa ñëwaat seede àdduna bi yépp ne man de sant naa la bu baax këram naa la bu baax ndax saa yu ma fi ñëwee li nga may wax mooy Serigne Touba laa lay boole ay ma ñëwee ak soxla Serigne tuubaa nga may boole yebal ma ma dem ci bërëb bi ah boo mu booleeg sëriñ tuubaa nag mooy boole nga mag sa bopp ndox yaay Serigne Touba te xam naa li nga nar ci sa biir xol am ci man li nga nar ci senegal yéene yi nga am ci réew looloo waral ñu nit dañu war di wëlbatiku ñaan yàlla suñu borom mu bàyyi la fi nga yàgg fi lool ànd ak wér ndax sa yàgg fii njëriñ la ci réew mi njëriñ la ci doomu aadama yi te it maa ngi lay dënkaat Sénégal ko dënk kilifa diine yi ndax réew mi toll na foo xam ne ñii kilifa war nañ di yëkkati kàddu léeg-léeg di artu di sàmm ndax ko gis li xew ci Afrique tey ko gis li ñu wóor waruñ toog rek naan ñële la ñële la te seeni ñaan seeni artu seeni kàddu dana delloo ci xel yi loolu sëriñ bi lu am solo la euh, bëgg naa yow ak daal kilifa diine yi ngeen yokk sàmm senegal yokk di ñaanal réew mi ndax jàmm ji fi am mën a law mën a yàgg mën a yaatu ndax jàmm si la lépp xëj ah man nag na ma la ko waxee woon bu jotee incha allahu rabbi euh, fas yéene naa fii ba ba may joxe lenge réew mi dinaa ko sàmm dinaa ko aar itam ci li nga xam ne moom la ma constitution jox ba nga xam ne benn yàqu-yàqu du ma ko seetaan mu ñëw ci réew li nga xam ne mooy lii sama wareef maa ngi maa ngi lay santaan nag lu gërëm lépp lu ma deful it ci liggéey bi nga xam ne sumb nga ko xëy na lu yàlla dogalul la waaye lépp loo yëkkati sama xol mooy jàppale la si bu baax a baax ci lépp nag te gis nañu it ngeen ne yi nga indi ci dëkk bu tedd bi di Touba liggéey yu mag a mag yii nga fi sumb ba ci njàngale mu kawe bi daara bu kawe bi di université Cheikhul Khadim gis nañu yii ñu fi liggéey mu tombe ak sa xilaafa muy autoroute bii ñu indi fii ba ci Touba muy hôpital bi ñu am fii ci Touba tey hôpital Khadimou Rassoul ah ak yeneen ak yeneen ñu ngi wax ndox meeg loolu yëpp waaye Touba yelloon na ko te ah, man de mbégte woon ci ma joxe ndigal sama gouvernement lépp luy wareef ci dëkk bu tedd bi ñu def ko dëkk bi moo ni moo ni kon mu des rek di sàkkuwaat ñaan ci yow sëñ fu ma dem yàlla mën ma fa jàppale et ma bàyyi itam réew mi ci jàmm ak salaam yàlla aarab Sénégal ndax jar ñaan yàlla génne na fi xéewal yoo xam ne fu mu feeñ nag bu ñu góorgóorluwul rek dana indi safan waaw muy pétrole muy gaz waaye yàlla bu ci defee ñaan ñi nga xam ne it ñoom lañ fi bàyyi ëllëg ñu bàyyi xel loolu bañ a war réew mi li nga xam ne réew mi moo ko moom muy alalam su ko defee muy jàmm ci réew mi di jàmm ci askan loolu daal sëriñ bi ci gàttal laa bëggoon yëkkati ay kàddu sant la rek ak ngërëm eh, di jottali sant sa taalibe bi soxna Mariam di di sant di la gërëm di sant mbokk yëpp allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam